bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa molana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayibina taahirin mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal sëriñ muntaxa ibnu cheikh mohamadul basir mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootuk sëriñ tubaa gépp di ñaanal cheikh abul baraka ibnu cheikh mohamadul fadil mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootuk sëriñ fàllu gépp ñu ñaanali Cheikh Abdul Karim Mbacke Fadilu mu yàgg fi loolu te gën a wér euh, yàlla bàyyi ko fi bu baax a baax a baax a baax te mu ànd ko wér nag te yéene mi nga xam ne am na ko ci jaam ñi mu àggale lépp ba def ci lu kawe njortam ba def ci loo xam ne dana kawe njortam bu baax a baax a baax euh, Cheikh Abdul Karim nag jëmm la joo xam ni. yàlla moo ko def ni mu mel euh, sëriñ Fallou Mbacke mi nga xam ne mooy waajuram daf koo waajal ndax ñoom dañoo doon ñoo xam ne seen njaboot bi feeñ kenn ku ne ak la ko tax a jóg ak lañ la war a defloo dañ la cay waajal bu baax waajal gi sax gi ci njëkk mooy ay waajuram seen melokaan ci mbaax muy maamam soxna Gayel géey ak waajuram soxna maam aw Fay histoire mi ngi leen di bëgg a miin ci seen mbaax te damay dellu rek ci li Sëriñ Tubaa waxoon ni li may def ci nit ndey ju liggéey mënu ko waaye duma ko def ci ku ndeyam liggéeyul kon ndey ju liggéey daa am solo lool ci nit moom nag yàlla suturaal na ko ndeyam yépp liggéey lañu bu ñu waxee ndey ak maam la araab yi dañ koy tënk rek na say ndey al ummuhaat rek lay wax moom muy maam ak waajur waaye bi ñu defee loolu ba noppi moom it nag gont na liggéey luñ ko rek mu toog fi doom yi soxna jaar dafa jaar sëriñ Fallou yóbbu bukk ci àll ba sori muy Saalum nga xam ne jamono jii rek ku fa dem xam ne àll waxuma laa nag jamono jooja la jiitu 68 nga xam ne moom 68 ci la bind kaamil at ma ca topp bi sëriñ Fallou làqoo kon boo ko seetee kon yàgg na ca daara ja daaraam yàgg na te jamono moom. nu mel tey ñu koy wax ci naqar yi kon ku ne xam ne jamono jooju lay gën a naqar yi mu ne fa yàlla suturaal ko fa lool waa dëkk ba bëgg ko lool sëriñ Muxtaar si mi ko doon jàngal bëgg ko lool ñi sant si ñëpp bëgg ko dong yi bëgg ko fekkewuñu ko waaye nag fekke ci ñu nettali ci làmmiñu ki ko dund ndax loolu dégg mu nettali ko ba tey ndax boo gisee mu koy nettali moom da ngay xam ni neex gu mu neex ci moom tem doon fàttaliku bu mu mën a fàttaliku ndax moom gis naa ne du fàttaliku lenn lu ñaaw lu baax rek lay fàttaliku lu mu xam ci lu baax nag ak nu mën a demee mën na ko fàttaliku moom waaye man gisum musuma toog ci jotaayam gis muy fàttaliku loo xam ne doonte lu ñaaw la te doon dëgg sax gisuma ma koy fàttaliku waxuma la ak leneen kon bëggal gi ñu ko bëggoon moom ci moom laa ko xamee ak ñëw gi ñuy ñëw ci moom nga xam ni nekk na fa ba mokkal alxuraan te laata muy mokkal alxuraan it njàng mu wóor la ko jàng ci niñ koy nettalee njool jaay bi moo ko doon jàngal man alxuraan lool muy suñ muxtar si mi nga xam ni ku ne xam na ak man alxuraanam bi mu jàngee ba noppee it njàngam xam-xam bokk na ci dem na ba ndar ngir jàngi xam-xam loolu daf koy nettali lu bari ba ci kër ñi nga xam ne ñoo doon doon jàngale sax bu ñëwee di ko siyaare danaan la ñii seen kër fa laa nekkoon seetu kër dafa dafa mën a fàttaliku nit kum nekkal nii te nga te sa xar kanam woon ci moom te nga fonkoon ko bëgg ko ak jamono yooyu nii fi to demee woon soo ñëwaatee ci moom ak ni jamono toll di tee dala koy fàttaliwaat ngir won la ne loolu fàttewuma ko te it loolu mooy ak cant waaye doo mas a dégg mu mu nettali ko kër gu mas a jaar am fa lu ko naqari musuma dégg mu nettali ko te loolu mënut a ñàkk ci nit faaw nit di jaar ci kër am fa lu ko naqari waaye musuma dégg mu fàtt nettali fàttali ko wax dëgg yàlla man galas jatara musuma ko dégg man mu samp ay daayira nag jóg rek xam ne daa war a liggéeyal yàlla ci jaam ñi samp ay daayira ba àddina bépp fu nekk mu am fay daayira daayira yi di ko liggéeyal ngir jëmmi sëriñ Fallou Mbacké waaye gis ci moom it nag lu ko jar lu tax ñu di ko liggéeyal waaw da loolu da ciy amaale nag gis ci moom lu ko jar lu tax ñu di ko liggéeyal ba tax ñu di ko liggéeyal muy ko am yërmande muy koo xam ne bokkam yépp la jàpp fi ne sëriñ Abdul Karim bu doon nuyu xalifa bu dul sëñ aboo ak bu doon nuyu sëñ aboo ñoom ñoo fonk gi mu leen fonk genn fonkeel la si ëboo nag day ab cëram waaye maa ngi lay xamal ne lim dencal si ëboo ci xolam moom la dencal sëñ Cheikh Saliou moom la dencal sëñ Ahmadou Muxtaar moom la dencal sëñ Siidi moom la dencal xalifa yi doomi sëñ Tuubaa yépp ak njaboot sëñ Tuubaa yépp loolu moom mën naa ko teg kaamil waat ko man ndax dangay ànd ak moom ci barab yooyu def di dem gis ni muy jëflanteeg ñoom ak bu demee ginnaawam ni muy waxee ci ñoom benn baat la ci rafet te it yërmandeem ku xam yërmande sëñ Fallou rek xam ne yërmande jooju rek la yor seetlu leen li sëñ Fallou waxoon ni damay liggéey damay jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolee muy mbiram de fi ne jamono jii ñu toll nii li muy jafe-jafe képp ku ko wër te bokk ci moom. toppatoo na la toppatoo na la ba li xew ci mbir mi wax dëgg yàlla da koy déggandoog nit ñi rek waaye fi mu ci war a taxaw fépp taxaw na ci bu dee ci wàllu ñaan man am naa lu ma ci xam loo xam ne man la ko siqal def na ci ñaan yu kawe kawe kawe bu dee fekk ñoo xam ne bis bi yëf yi am na nu mu demee ci ñoom mu dimbali leen am naa ci lu ma xam loo xam ne xëy na du jar wax ci ab tele waaye na nga xam ne daal. képp koo xam ne waroon ngaa dégg na tey yi fi métti na ci moom tam newoon fi ñu naa ah, kii kër Sëñ Abdou Karim waroon naa def nangam ci moom kooku Sëñ Abdou def naa nangam ci moom ngir jëmmi Sëñ Fàllu Mbàkke bi ñu bokk ñaareel ba ku àgg ci moom mu dalal sa xel li ñu fi jafe-jafe jafe-jafe waxoon na nit ñi ngir ñu dellu seeni kër toog daal ne daa am lu ma leen di ragalal waaye man ragaluma foofu mu ci nekkoon fa la ci nekk ba tey tawat ji li muy am am am ak li muy am am am jaam bu yàlla sàkk la jaam bu yàlla sàkk nag mënees na ko kalaameeg yàlla yàlla dafa wax ne maay wàcce balaay waaye maa koy jeñ te it yonent bi dafa waxoon ne ah ay balaa bi doa wa daawoo mardaakum bi sadaqa seen tawatkat yii bu ngeen leen bëggee faj day leen saraxeel balaa bu wàccee ci yéen de leen ñaan ñaan yooyu nag moom def na ko lépp li nga xam ne mooy waral moytu ko it mu ngi koy digal nit ñi ngeen di ko def def waaye ñaari parti yëpp ci la ne bu ngeen gisee sëñ Tuubaa ne sallamtu ahli wa maali min al ayaab min al iyaali maan min al wabaayi wa fi ni maa xaaboo sama waa kër ak samay njaboot musal nga leen ci ak mbas mi daal ne àdduna ak àllaaxira du ñu perte sëriñ tubaa daa ñaan ñaan goo xam ne ci la yàlla sukkandiku ngir musal waa këram ci loolu bari na yaa rabbil mustafa al muxtaari min mudari mi ngi fi safiyu ummatihi fil baddi wal adri ba ba dem ba àgg ci wax wal tas wal tasrifi daa an mardal jami bihi mbooleem ko tawat yow yàlla maa ngi lay ñaan nga fegal ko tawat ji sëñ Abdou Karim mi ngi ci loolu ci ñaan ci dimbali nit ñi loolu nag moom da ko cay fekkoon moom moom fi jamono toll nii mu am xalaatu dimbali ay nit doonut lu muy jàng lu muy tari la ndax lu mu nekkoon la ndax bu dara xewutit foofee muy toog ci garabam gi wala fa muy toog ci saalam ba xeetu nit ku ne fekk na ko fa ci lu ma teewee te jotaay bii am na ñu fi nekk ñoo xam li may wax mën nañ ñoo téye micro bi na bu ko wax dëgg la wala du dëgg ndax fekk nañ ko maanaam kenn ku ne fekk na ko fi wallahi al azim daana jaadu ci ay nit ñu am ay saal yu mel noonu nga di ko xam nit ñu mel noonu den fekk du yomb waaye saalam boobu nit ku nit di seexlu ku ne fekk na ko te ko xamoon dara doo seexlu sa moroom ndax yàlla bind ñëpp kullukum min aadami wa aadamu min tur min tiini trop kenn ku ci nekk ci ñun ci aadama la jógee te aadama ci banam suuf rek la jóge moo tax moom bi mu xamee loolu tax na kenn ku ne jegel na la boppam di la dimbali lu mu man am na ñoo xam ne Sëñ Abdou Karim moo leen yoral dépasse xamoo leen ñu dul jeex ñim xam moom ku ne xam na leen ñoo xam ne moo leen yoral dépasse ñëpp xam leen waaye am na ñoo xamante ne bii xamoo leen da a boole koo xam ne saa ñu xëlee xëyee ci moom kookee mooy dem ba ñoom mu jox leen ko te mooy Fallou Gueye mii ni ci këram hmm? waaw te lii du fii rek ndakaaru la nga xam ne ñooñee nekkoon ndakaaru bi mu jël see fii loolu da koo sofaat du lum sosen Touba ma leen di xamal ni liy jóge ci poosam bis bu set di dem ci ay nit loolu de bu maase woon ci àdduna jàmbat mën naa wàññi ko bu baax a baax a baax loolu moom man xam naa ko kudul man it xam naa ko te lu muy def la te yàlla rek tax ku dem ba am lu ñuy woowee waa kër te waa kër yooyu mu am noonu la Sëñ Tuubaa amoon ay waa kër waa kër Sëñ Tuubaa yi te yonent bi amoon na ay waa kër ahlu sufa ñoo na ñoom lañ da uh, waa kër Sëriñ Tuubaa mooy ñi nga xam waa kër yónent bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne yónent bi salaam lu masaan am ñoom la ko yónnee ñii ñuy wooyee waa kër Sëriñ Abdou Karim mbaar la leen tabaxal di leen ci teg di leen jox ñu añ bu ñu añee ba noppi jox leen soo ñu naan bu ñu naanee ba noppi ba ngoon mu yewi leen ñu am dépasse bu ñu xëyee ñëwaat ñooñu loolu lañ saxee ak ñi nga xam dañuy ñëw nuyu ko booy dem mu jox la am na ñoo xam da lay déglu boo dara boo noppi mën a lii nga def ci paas loolu àdduna bépp xam nañ ci li wax mu di ko def te yàlla rekk tax loolu lu ma a wax la du wàññi dara ñi wax gën a jubluwuñ ci lu may moo doon barke wàcc ci kaw mu yàgg fi téwér rek allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim